هارون وعاصم بفارس وجبريل قادم ورسل خيار حافرون لفاضليتي وللكون كل وهوان هاروت الوسطى ñu lay nuyu di la siyaara mu ne xaddee jaawi noon li ñu waxoon daaw rek loolu la ñuy gën a ndax loolu mooy dëgg ci ñun mu ne lii bañ koy sos dañ ko sosoon te yàlla rek tax yàlla jooju ci loolu lañ nekk ba fiñ toog nii tey ñun ñii ñëpp say taalibe rek ku nekk ci ñun ba nga koy may wér na yëgante woon ak sa morom. waaye yow la tànn yow wóolu sa muqaddam gi ñaan la wérde wi nga may ko ko ñoo ñoo seetante ba nekk mbooloo tànn bis bii ñëw siyaara si la ngir yàlla kese ñu ànd ak dina ñaan nga yàgg fi lool te ànd ak mu ne loolu rek lañ bëgg nga yàgg fi lool taxaat na mu ne li nga mébét ci sa xol bi yàlla na la ko yàlla defal ki nga bëgg a le te ñun moom liñ jàpp mooy yàlla nga fi àgg rek waaye fu nit di àgg ñun jàpp ne romb nga foofu ñun loolu lañ gëm sëriñ boo xam ne moom ci àdduna ñu naaw ko loolu moom amut yow rek lañ naaw te fañ kenn sa kaw lañ jiital kanam loolu nag tey tënk ku ci waxi daaru mu ne boo amee sëriñ bu ma sëriñ ngay taalibe bu ma taalibe sa mbir yëpp dañ cee jiital sa sëriñ xadiimu xoolil xadiimi fil umoor yi ci lañ nekk lépp luñ ne yow lañ ca jiital yaa ne ci digg bi yaa nekk ca gannaaw suñ yaakaar yëpp yow la ku nekk cofee nga maamoon ba ñëw ñaan la wér la dara wàññeeku ba bisab tey bii mu koy def saytaani be lañ ñu jeex ci yow tàkk li ñuy wax nekk dëgg ci seen xol yi loolu moo feeñ ci suñ jëf ji waaye yàlla dimbale nañu ñu dajeel sëriñ boo xam ne xoolu nañ ko yaakaar nañ ko doyloo nañ ko xam nañ ne man na sëriñ barkeem ba maas nañu ba yëf yi yokku yàlla kanam tey ñàkk la fay fekk ñu ngay xeesal pas-pas ci sa kanam te xeesal sunu taalibe bëgg nga ñaanal ñu fukk taalibe yu dëkku ñu nekk ay yu dëkku ci wax ak ci pas-pas ak ci jëf ñett yooyu bu mu wutee buñ wax luñ gëmut buñ fas luñ dul wax buñ jëf loo xam ne dafa wut ak yoon duñ ko wax wala fasuñ ko liñ fas yàlla lañ ko mën di wax te di jëf jëmale ko ci yow moo leen ñu ñaanal ñëpp moom lañu wax mu ne bis bii am na kuñ ko tuddee la tax ñu tuddee ko ko kuñ gis mu ko ci yow kuñ gis ne am na ci yow cofeel ñun kooku am na ci moom cofeel ba ñu mën nañ koy jël tollale ko loo xam ne yow lañ koy defal loolu mooy sabab bi sa ñàkk salaam tey boo am ku dem moom lañ tuddee bis ngir sa diggante moom li ci saayir ñoqa li nga xam ne mënta mooy ku fi daan ñëw da wax ak yow rek ci la ñam ngëb ko yaakaar na doy na ñu tuddee ko bis bi rek la ci bopp waaye ñoom yow rek lañ jub yow rek lañ wóolu yow rek lañ yaakaar mu ne li may wax nii dëgg la jubeer kat ñim xam ne nii mënuñoo wax waaye moom li may wax lépp dëgg la luñ la defal xeeb nañ fàtte nañ ko bëgg nañ dala lëggéeyal taalibe bu njëriñoo ci kër sëriñam lu ma la njëriñoo ñun ñu koy dagaan ci yow bëgg nañ ko jëriñoo ci yow taalibe bu jëriñ sën ba sëriñam bëgg ci taalibe ba bëgg nañoo dem taalibe boobu jëfal la jëf jëf ba nga bëgg ñu wa salaamu aleykum wa rahmatullah. waaw bi Farisin وجبريل قادم ورس خيار حاضرون لفاضليتي وللكون ذل وهوان